lu bu mel nii lëndëm dafay bare jaxasoo dafay bare xel mu dalit dafay néew waaye benn bu ca nekk nag am kilifa gu ko mot dina la ci dimbali ndax bi yàlla waxe yaa ayyuha alladina amanu taqullaha la wax ni wabtaxu ilayhi wasila te itam nag lii tax nit ragal yàlla doomu aadama bu nekk war na fexe ba am ko ci xolam lii tax nit ragal doomu aadama bu nekk war na fexe ba am ko ndax du ci xol yépp la ko yàlla barkeel bu ñu nee imaan bi tax tey nit ki mën a revendiquer appartenance am ci diinal islaam imaan boobu ñuy wax yëpp manifestation bi nga bi ngay def pour ñu xam ni yow ko gëm yàlla nga mais imaan boobu am na côté sacré te côté sacré bi mooy wéetal yàlla ba yàlla yëpp ni wéetal nga ko te loolu du mën a nekk lu dul baat bi mu ni faax la mu annahu laa ilaha illa allaahu da nga ko maîtriser ndax wéetal yàlla nii ci làmmiñ rek taxul kenn àgg ci yàlla wax ni it wéetal naa ko taxul mu nangu ni wéetal nga ko pratique la bu nit ki di jëf te li ci roxaaniyu bi di seddu moo ëpp li nga xam ni moom la doomu aadama bi di manifester ci bakkanam mooy jël yàlla tekk sa kanam ndax nit ñi nekkuñu fi yàlla moo fi nekk moo tax looy def defit bu ci xool ni ko nit di interpréter parce que bis boo ko defee rek dugg ci kàmb xoolal ni ko yàlla di visionné léeg nga gis koo xam ni nit ñi sonal nañ ko sonal koo xam ni ndax lii luqmaanul xakim waxoon dëgg la neena nit ñi am na ca parti boo xam ni boo nee nii su ma ko doxalee ñu déglu ma nga doxalee noonu parti bi bi lay déglu am na parti bu la déglu boo changé itam parti bi la doon déglu bala parti bële aussi jël la finalement da ngay nekk seen otage mu ni boo bañee nekk seen otage nag looy dugg jiital ci yàlla na ci njëkk na ci mucc ndax yàlla bu la xasee ba accepté accepté na la waaye aussi du accepté ki nga xam ni bëggul yërmandeem te ñëw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci monde shahada pour mu dundal yërmande yàlla ci kaw suuf moo tax moo tax Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif wax ni tagg nañu yonent bi ci tur bu nekk tagg nañu yonent bi ci xaqiqa bu nekk mu ni waaye li ma gëm te mën ko wax mu doy yonent bi mooy huwal xaybu fi shahaada kon dikk na moom ci monde bu mu bokkul l'antimatière dans la matière